la ilaaha illallaah wala sama xar mi wala mu yëngal geen kii dee bis ba mujj di jee ba ñëw wut sama moutarde wut sama mami wut suusal ko wut sama grillage wut sama xal dama koy dibi ko kii moom wala ma suppi sax naan waa nijaay yow bi nga xëyee ba léegi yaa ngi foofu toog amoo benn soxla lu dul xar mi rek xar mi daal tànkalee kooku rek doo jóg foofu nijaay jógal loolu may dégg foofu moom lan <laughs> vidéo bii de xar mu baax la. laa ilaaha illallaah waaye kii ku mu doon xanaa yow malaakal mawti nga ku la yónni yàlla tif yàlla tif yàlla tif yàlla tif laa ilaaha illallaah waaye foo bàyyee ko ban côté naa nga jógee yàlla tif yàlla tif waaye yërëm moom waay bi sama jabar ngay jooy waay waaye yërëm ñu waaye xar waaye yow père xar mi moom fi indi dama koy jël ma dem sama yoon mu la ma sonal waaye wala rek ñu jëngal waaw du si am du si am yëngal gis moom du si am jëlal rek gi yóbbu jëlal rek gi yóbbu. maam Demba li xaar yegg si